géré benn kuréel bu ñuy wax maire d'élève bu quartier Gurel Jaaje yoraat beneen kuréel bi nga xam ne moom mooy animatrice des calebasses jàppal ma jàpp bu Diirfel directoire régional des femmes en élevage bu Tambacounda soxna Abi laatu ñuy dugg ci waxtaan bi rek ma bàyyi la nga nuyanteeg suñu téléspectateur ak suñu téléspectatrice yu Tamba TV. parce merci Ouzin maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu ñuy seetaan tey ji euh, di gërëm di sant Ouzin bi nga xamante ne moom mu invité fii tey. di leen sant di leen gërëm. soxna Abi laata ñuy yegg ci waxtaan bi bu baax yow d'abord da ngay jiite ñaari kuréel benn bi di présidente association des mères d'élèves de Kourel Diagne bu njëkkoon parents d'élèves rek lañ doon dégg tey ñu ngi dégg mère d'élèves lu waral ngeen sos kuréel boobu. Euh, merci Ouzin dinaa sawar si tontu si laaj boobu ndaxte directeur monsieur Wane moo fi nekkoon parent la dañ doon euh, jox élèves ay convocation pour ñu wo seen parents d'élèves té te bu ñu joxee xale convocation yi à plupart jigéen ñi ñoom ñooy wuyu si moo taxoon ñu ne léegi est-ce que duñu def association bo xamantene ne jigéen kese lay doon te jigéen aussi ño gëna mëna mun seeni doomi ndax ño leen gëna a mo tax ñu créer association des mères d'élèves de Gourel Diadia. parents d'élèves nak parents d'élèves yi ak jigéen la mais mère d'élèves jigéen kese la. téréwul amna parents d'élèves. ci biir association bi. noonu non amul góor. amul jigéen kese la. Mhm. ñaata ngeen. Euh, nous sommes au nombre de 45. cinq waaw mais élèves yi ëpp bokkuñu ci association bi. Mhm. moom laa wax yéen jigéen ñi. jigéen ñi association yéen waaw élèves yi ëpp nañu 45 ëpp nañu 1000 kay. waaw yéen ngeen toll ci 45. waaw xanaa dafa am ñu ñëwagul. Euh, dafa am ñoo xamante ne xëy na dañu ne woon euh, ci réglement intérieur bi képp koo xamante ne am nga fa doom nga bëgg a bokk ci association bi nga ñëw nga adhéré.

jàngalekat yi jàngalekat yi ñu ngi ci population bi <laughs> ñu ci population bi. loolu nga leen jagleel ci seen activité yi. <laughs> ci suñu activité yi euh, vraiment ñu ngi ci biir ndaxte bu ñu defee maraîchage bi ñoom dinañ ci jëriñu bu ñu defaree xale yi état civil yi ñoom tamit seen problème tamit bu fa nekkee dañu informer pour ñu jàppalee xale yi ci état civil. kon jàngalekat yi am nañ si wàll daal si sama gis-gis. Mhm. ñaata école élémentaire la am. ñaari école élémentaire. yéen ci benn bi rek ngeen di yëngu. wala ci ñaari école yëpp. non premièrement si euh, école 1 lañ nekkoon mais problème dañoo am problème ak école 1. Ah, ban genre problème. problème bi ñu am mooy que monsieur Wan ba mu fi nekkee dañu ne woon ñun dañoo bëgg garderie fu ñu denc suñuy doom ndax jigéen ñu bëri dañu xëy dem marché. ni di xey di bare carrière yi amuñu fu ñu dénkaane seen doom directeur école bi ak euh, ay katam ñoom dañoo bëggoon salle informatique yàlla dogal ne ñu amoon partenaire boo xamante ne ñu ngi Rossir yoon mooy association d'échange international et national léegi euh, ñooñu ñooñu bu ñu leen waxee ne dañoo bëgg salle informatique ñooñu ñu ne ñoom mun nañ leen a jàppale mais dañu boole ak ambassade France léegi ambassade France ne ñoom duñu ñu mun a financer état fokk ñu wut association porteuse du projet boo xamante ne mu ngi si biir koñ bi monsieur wan woo ñu en tant que association des maires d'élèves ñu ngi liggéey ak moom mun nañu léegi ne nañu couplé seen ñaari projet yi yéen newoon ngeen bëgg ngeen projet boo xamante ne euh, garderie la ñun bugg nañu salle informatique nañ ko boole léegi def ko benn projet tëgg ko jébbal leen ko ba ñu d'accordé ñu financé ñu salle baa ngi foofu tey bi salle bi xasee ba tabax ba taxaw man mii maa jéngu woon sax en tant que présidente amuñu woon lu ñu fayee monitrice yi man maa jéngu woon doon jàngale si saal bi léegi bi saal bi demee ba sotti yàlla dogal directeur jël retraite beneen directeur ñëw bi directeur boobu ñëwee nag léegi problème taxaw xam nga sénégalais moom fu xaalis am rek problème am na saal bi ñëw na taxaw na bëri nañu ay élèves élèves yaa ngi inscrire élèves yaa ngi fay gestion bi am problème

ah ne sais pas, daal parce que man duma suis que une banque dañuy and ci je parce que affaire gestion bi ñu ne ko ñun gérer inspecteur si bopam mu ne mu ne ñu gérer yow un droit de regard sur ce qu'elles font mu ne nak mom ñom ñoy gérer ñu wax wax wax ñu ne ñom ñoy gérer xam nga tamit di bu mm-hmm. depuis Dominique fi Dominique Diouf. mu nekkoon fi ma wax ba sonn def ba sonn inspecteur jax ñëw ma wax ba sonn def ba sonn dara mu campé fu mu campé inspecteur Diop ñëw ma dem fa mu boole ma ak inspecteur Wade ba ma demee si inspecteur Wade inspecteur Wade ne ma carrément lu inspecteur yi mënuñu régler et eh, man duma ko mun a régler depuis inspecteur Diouf ba tey mënu leen régler problème bi man ma ko ah su ma fa demee mu ne moom du liggéey ak man léegi kan lay liggéeyal bañ naa ba nee naa ko léegi négal ma jël sama adjointe kon mu liggéey ak yow mais mun na daal ñun daal dañoo nekkoon fii rek pour porter projet bi porter nañu projet bi projet bi dikk na projet bi dikk na ñun bokkatuñ si projet bi. loolu moo ñu jógee loolu moo ñu jëlee. actuellement comme que garde di problème garde lañu ñu amoon dañoo loué local. bu ñu luwee local di fay local bi ñu yóbbu fa suñuy élèves. lépp amoon nañu garderie mais ki doon jàngale si garderie bi aussi dafa daal di sëy France du fële Espagne actuellement dafa dem sëy Espagne ren ji moom amuñu garderie ndax bi euh, kooku dafa sëy daaw waa dinañ jël dinañ jël keneen parce que fan yi moom euh, wowoon nañu inspection sax ne képp koo xamante ne bëgg nga garderie na nga bind nga ñëw ñu seet mais bërki dee mu dem naa si directeur euh, d'enfants mooy école Gurel 2 ma ne ko am na élèves yu bëri parent yi dañoo bëgg xale yi di ànd ak seeni frère léegi école ba foofu mun nañ fa def benn classe boo xamante ne classe préparatoire la mu ne ma amul benn problème ma ne ko léegi na bind ñu ànd ko moom mu visé man ma visé ñu ànd yóbbu ko inspection dinañu accorder foo benn préparatoire mais boobu préparatoire

nu mu tuddati salle polyvalente salle informatique lu nekk lu vraiment seeti woon nañ ko premièrement mais euh, politique moo doy moo doy waar bien vrai que Sidiki mu ngi def si développement bi mais homme de politique la boo fa demee pour nga gis ko problème la. Ah, pour nga gis ko problème ñun première fois bañ fa demee dañoo toog ba sonn si salon bi ba mujj man ma daal di ñibbisi

xam nga luñu laaj délibération dox dox nañ ci ba son. dem naa préfecture ñooñu ma bind demande def préfecture préfecture yónnee waat ko mairie léegi nag man waa mairie lu ma wax moo ñu duñ ñu mun a jox minorité terre lu tax loolu xaw ma ah, xanaa yéen nekku leen ci maire déedéet nekkuñu si maire parce que association association moom politiqueul parce que boo ne association c'est apolitique léegi projet boobu dafa nul. projet boobu nulul ñu ngi si ñu ngi si jéego yi ñu ngi si jéego yi parce que barki démb dong Mama Diallo moom secrétaire général taxaw na si ba sonn. Ah, taxaw na si ba sonn général mairie. secrétaire général mairie. mu taxaw ci test dara nu mu si taxawee mooy ànd naa ak moom ba kadas kadas jéem a xool nu mu ñu jàppalee ba ñu am kayit kadas nañu nu ñu dem impôt domaine ñu dem impôt domaine ma ànd ak moom ba impôt domaine bañ demee impôt domaine aussi. Euh, ki fa nekk nee na fokk ñu jox ko délibération. léegi amaguñu délibération parce que délibération maire la ak conseiller yi léegi nag secrétaire général maa ngi koy ñaanaat euh, pour mu dimbali ñu am audience ak maire ñu def ñun suñu association bi yépp ñu takku dem gis maire tapé sur la table mu xool ñu jàppale ba ñu am délibération 14 million yooyu xaw ma 70 million yooyu pour pisciculture la mais 14 million yi pour maraîchage la.

jafe-jafe yi ngeen di jàppanteel ci quartier beeg yooyu wala amu leen benn jafe. Gurel daal dafa mel ni dëkkuñu si Tamba. Ah. boolewuñu si Tamba. Gurel Jaade bokkul si Tamba Gurel Jaade dafa mel ni bokkul si Tamba. Gurel Jaade du yoon bu baax. Gurel Jaade soo paasee goudron bi si biir mhm. doo gis benn lampe bu tàkk. ah lu waral loolu. ah xamuñu ko. Mhm. Gurel Jaade mu ngi noonu. Mhm. bu nawet xasee ba jot boo buggee dem biir Gurel doo am taxi bu la yóbbu ndax duñu nangu. yoon yu bon ndox yuy taa yu kenn xamul. xeex nañ ko xeex nañ ko ñun bañoon nañ ko ba def fi benn mouvement pour la défence des intérêts de Gourel mhm. te Pape Gueye jiite woon ko def nañ fi ay euh, mobilisation dox nañu ñaxtu nañu mais yàlla baax na xëy na bu ñu changé maire mhm. wala gouvernement bi fi nekk mu jóge fi gouvernement bii di ñëwaat <laughs> dinañu taxaw <laughs> dinañ ko changé maire moom xam naa ne moom xëy na bëggatu si dara sax si ah. sama yaakaar ah. bëggatu si dara sax ah lu waral loolu foofu donc nga teg sa loxo foofu ñu jublu ci animatrice bi nga doon mhm. calebasse yu ñuy wax calebasse jàppal ma jàpp bu directeur régional des femmes en élevage yaa mhm. waaw calebasse yi ñun femmes éleveurs yi dañoo seetlu woon ne pour ñu am crédit si banque yi dafa jafe ndax éleveur boo ko laajee ay intérêt dëggal ay euh, caution wala ay garantie ay kër yooyu da koy jafe moo taxoon ñu def suñu calebasse bi ba ñu ngi ko lancé woon CICES marraine ko fay Faye madame Marème fay Sall léegi te calebasse yi nu muy tëddee calebasse dañuy woote euh, ay réunion par semaine semaine bu nekk dañu daje di waxtaanee problème mu jigéen euh, éleveur parce que dañoo bëri jafe-jafe. jafe-jafe yi tey jii ñun waxuma la ñun ñi nga xamante ne ñu ngi si biir taaxi sax mais ba si si biir village yi. ak ñi nga xamante ne dañuy màngaani seen doom yi gis nga bu ñu leen dugalee école bu eh, bu nawet ñëwee ñoom duñu xaar ba école tëj de dañu ànd ak seen doom dem màngaani ñu ngi leen di sensibiliser parce que xale tamit place am mooy mu école dañoo war a jàng bu ñu bu bu ñu amee doom duñu inscrire seen doom ci état civil dañ leen si sensibiliser loolu mooy jafe-jafe jigéen ñi te état civil jigéen ñi aussi dañuy sëy rek sans certificat de mariage dañoo war a am certificat de mariage ndax lu am njëriñ la état civil lu am njëriñ la loolu yëpp dañ siy sensibiliser jigéen ñi bu ñu ñëwee par semaine di waxtaan dañuy waxtaanee problème yi nga xamante ne moom la ñu jànkonteel ak problème yi nga xamante ne moo nekk si koñ bi wala moo nekk si kër yi ndaxte problème boo gis am na solution dañuy seet encore si sunu biir problème bii kat lan mooy solution am bu fekkente ne ñun sunu biir foofu mun nañ ko regle baax na suñ ko mënul tamit ñu génn xool naka lañ koy résoudre kuréel bobu kañ ngeen ko sos calabasse bi. calabasse bi 4 ans 4 ans chaque année nous dañuy euh, par semaine vous épargner euh buñu un mois deux mois nous leblante suñu biir moy ñu am nous, microcrédit bi. ngeen chaque semaine. chaque semaine par bi 1000 francs la ba 5 parts bo amé 1000 francs bo amé 2000 bo amé 3000 bo amé 4000 bo amé 5000 fa ba 5 par. ñaata ngeen. Euh, calabasse bu nek 25 personnes. 25 personnes calabasse euh, minimum maximum 30. ba ngeen ko sosee ak légui yagna yagna ñaata ngeen njëkk a am ci xaaliss non xam nga calabasse bu nek ak li am. ni dinañ am 3 millions. ñu dinañ am 4 millions ñun euh, man calebasse bi ma pag ñëpp maa ko sosee hein ah, ah. bi ñëpp maa ko sos parce que c'est au niveau régional waa tey man sama calebasse man bañ koy séddoo amoon nañu 4 millions 230 euh, mm-hmm. waaw xaalis boobu euh, buñ ko séddoowee dañuy def opération tabaski dañu def opération tabaski dañu jënd ay xar yefal ko jaayaat wala si dëkk bi ku bëgg parce que ñu si nekk si calabas moom xanaa seen jëkkër lañ koy jaayaat waaye ñëpp dañ siy bokk. ñaata ngeen di jaayee xar. ça dépend si liñ ko jëndee. Mhm. waaw xar am na xar 40 000 45 000 50 ba 80. tey sama technicien bi bu bëggoon xar tey bu ñëwee di ngeen ko jaay. waaw mhm. incha allah. ñaata lu mu am rek mu indi. mu mu am rek 40 daal ba 80 ba 100 boo bëggee am xar waaw. da ngeen di leblante seen biir wax nga ko sànq. waaw dañuy leblante 50 000. ba 300000 moo taxoon tey am nañu euh, kii boo xamante ne dañoo bëgg a def union des calebasses parce que 300000 fa la calebasse bi mun a yem mais boo buggee cinq cent 500000 jëm kaw fokk ñu dem ci mutuelle walla ci banque yi te banque dafa metti dañ lay teg intérêt di la laaj garantie léegi nag moo tax tey ñu bëgg a def union des calebasses union des calebasses mooy calebasse yi ñooy cotiser def ci union bi union bi di épargner. Euh, plus de 300000 fekk union bi moo koy leble. yow daal région bi yëpp ngay jiite. waaw da ngay dem ay Bakel ay Koupentoum fépp. waaw fépp Calabas am na. fépp Calabas am na région Tamba yëpp am na Calabas c'est national sax. mais man maa jiite région Tamba. waaw suñu président maanaam këpp kees wala yooyu du am. këpp kees moom amul parce que kees yi mhm. trois caabi la. Ah, trois caabi la. da ngeen di defar maanaam kannaar. kannaare trésorière bi bu yoree kees bi du yor caabi ñetti jigéen ñoo yor caabi ñetti jigéen ñi dañuy sorewoo kii yor benn kii yor benn kii yor benn chaque semaine bu ñu ñëwee ñetti jigéen ñi dañuy ñëw ubbi caabi yi ñiy compter xaalis bi génnee compter seet ndax liñ fa bàyyi woon moom lañ fa fekkaat bu ñu épargner ba pare tamit ñiy compter dañuy ñëw compter waat xaalis bi encore mm, ba mu mot ñu xamaloo yépp ne lii lañ fi bàyyi ñu note ko ñu dem. Ah, bu ñëwaat am na solo trop amoo xamoo nooy def ba jël ci xadiram chaque fois bu ñu ñëwee dañu compter balaa ñuy commencé xool liñ fa bàyyi. ndax kon ñëpp am nañ ko fii Tamba. Tamba hmm. kon ñëpp am nañ ko. Hmm. waaw te lépp yaa koy jiite. waaw. sànq da affaire bu ma xaw a jaaxal mooy politique doo leen def politique yi. Euh, association moom c'est apolitique. ku ci def politique yow. am na am na ay benn benn ñuy def politique. ah tey politicien bu soxla woon seen association yéen yéen jigéen ñi. Hmm. ngeen ñëw jàppale ko noo leen di def. ah buñ si gisee seen intérêt ñu jàppale ko ndax tamit. ku tibb def sa gémmiñ. maire bu ñëwoon jox leen 10 millions ne bu fekkee day def li ñu bëgg. mooy lan li ñu bëgg. lu askan yu bëgg. mooy lan li askan yu bëgg kay xam nañ ko tey jii maire bu nekkee fii tey jii bëggoon nañu tey jii ñu ñu ñu ñu ñu. délibération tey bu leen defaloon délibération. Mm. suba mu ne kaa leen di ngeen ko suba si yan condition lañ koy jàppale. mooy délibération bi. délibération bi kese. ñu jàppale ko mm. déedéet bu ñu joxee délibération bi. lan mooy programme am. yow dafa mel ni maire ah non maire kiiwuma ko bañu ma koo faral sax waaye tamit boo fi nekkee. am na lu tax nga nekk fii da ngaa toogal fii askan wi. mais tey jii même terrain yi nga xamante ne ne noo loti yi ñu yor si Gurel ndax mënuñoo fexe ba lotise ko maire bu mu fi toogee ba tey ñu fexe ba lotise suñu terrain yi ah benn ñaari bi délibération bi depuis ñaari at. kon pour am na lu mu fi def xëy na waaye ñun de Gurel Jaaje moom wax dëgg yàlla. gisu leen seen bopp ci mairie am na fu ñu ko gisee woon mooy bi ñu defee plaidoyer pour clôture mur de clôture suñu poste santé bi wax dëgg yàlla maire taxaw na defaral nañu ko. maire moo ko clôture. waaw bu weesoo loolu def ko fa waaw yow ban man man fu mu ne nii maa ngi si teraanga Sénégal. teraanga Sénégal. des na leer rek teraanga Sénégal mooy la man de. teraanga Sénégal docteur Abdoulaye Niane moo ko jiite. professeur docteur Abdoulaye Niang gitu. wa mu ngi tok Dakar nak mu ngi tok Dakar eh, mais ñun fi coordinateur régional bi mooy Almami Dabo mu ngi Espagne man may adjoint ah, def xam nga ko kon xam ko gis na ki tay wa Tamba am nañu ko si xam de hmm. ñu ngi ci promotion bi promotion moy lan promotion bi diko ko xamal ñun ni ak aussi lan la nam waaw la nam waaw tey jii ñun fii tey jii xam nga moom mu ngi Dakar moom mu ngi Dakar présidence la bëgg ah, remplacer Macky Sall la bëgg ah, yàlla na ko ko yàlla may si ah. daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si weeru koor gu tedd bi yàlla dina ko may sax ndax defe naa ne am na ambition si réew mi bëgg na lool lool développement réew mi 2024 candidat la pour jël nguur gi dina yomb dina yomb dina ah, yomb dina yomb léegi nag tey si Tambacounda fii tey ñun ñii ñoo bëgg mairie bi ak conseil départemental ah, bi kon candidat nga mairie la mairie mairie bu tam waaw ah, loolu lu tax ma ne candidat la parti Teranga Sénégal ak coalition jot na mhm. ñoom ñooy euh, dem élection mais ñooy lëkkale non non parti Teranga Sénégal mhm. euh, mu ngi bokk ci coalition jot na Ah, ci la bokk ci la bokk président docteur Abdoulaye Niane moo jiite coalition bi moo jiite coalition bi ñun nag ñoo ko représenté fii au niveau de Tamba. kon wóor na wóor ni yow candidat nga mbir. non mënuma wax ne man candidat laa. Uh-huh. parce que euh, désigné guñu kan mooy doon candidat. mais yow bëgg nga. ah bëgg naa. ki nekk ma mbalalu. waaw. Ah, fu ma koy teg xanaa si bëgg dëkk bi si bëgg dëkk bi. ak xam aussi am am am samay projet yoo xamante ne su ma ko tegee dëkk bi dina jëm kanam projet yi bu ñu xamee foo jëm doo yegg wala ñu sàcc say projet. déedéet tamit man tey bu xam naa ne samay ñu wooteel <laughs> waaw dinaa la ko wax technicien tamit xamee. dinaa la ko wax dinaa la ko wax si pet dinaa la ko wax si pet fekk du si télé bi nga xamante ne ñëpp a ngi koy déglu. ñëpp a ngi koy seetaan déedéet dinaa la ko wax. li tuuti candidate lañu mairie. Ah. candidate Teranga Sénégal candidate la mairie waaw. candidat lañu mairie. bëri nañu kay macha allah waaye ku nekk ku nekk bu tegee sa projet rek bu soobee yàlla dina population bi dinañu xam fu ñu jëm. ndax ku tibb bu def sa gémmi fu seen njëriñ jëm rek candidat rek moo am Tamba muy Sidiki Kaba ci lu muy def. ci lu muy def ku ko wax. ah nit ñi ñoo ñu ngi koy wax de. Sidiki Kaba am na am na am na am na am na ñu ko fi gëm mais am na ñu ko gëmul de. Ah, ñun. Ah, lu tax gëmoo ko ñun ah gisuma ah, ko. gisuma ko marché Gurel Diagne moom kese de ñun ñëpp def nañ ci population Gurel Diagne sa def na si moom def na si maam la loo def na si. almeeru Gurel Jaaji. alme ak meeru Gurel Jaaji yi lan. almeeru Gurel Jaaji. almeeru Gurel Jaaji yi am mm-hmm. ah, mais loolu. loolu kay wax dëgg yàlla bu ko defee tamit du question ko dañ koy kii na indi programme am si euh, région Tamba bi ñu xool. Kase tamit nee na candidat la. Kase waaw ku nekk sañ na wax candidat la ku ne sañ nga ne candidat nga waaye nag nag ku nekk teg sa projet. ku nekk teg li nekk waaw waaw incha allah dinañ leen dóor dinañ leen dóor incha allah wallaahi dinañ leen dóor ah, boo jëlee mairie bi tey hmm. waaw su ma jëloon mairie bi nga xam su ma jëloon mairie bi chômage bi ñuy wax dina wàññeeku ah, ndax ñépp dinañu dellu si suuf si dellu si suuf si ñun am nañu suuf macha allah am nañu ndox am nañu naaj te agriculture ak élevage sont des leviers de l'émergence président Macky Sall moko wax way nak ana lum ci def. Ah, la terre na mo pa def lolou lay faral di lolou lay wax fum ne ni sumay wax ak sunu jigen ni bo jëlee sachet 300 francs salade nga def ko sa pépinière nga def sa plan salade ah ya nga jaay sa plan 15000 francs plan bi yaa ngi koy jaayee 15000 francs té sachet bobu mën nga ci am ñaari plan lan ci si ban si ban euh, activité ngay def nga am lolou

am naa ginaar. ah da ngay damay jaay ginaar damay jaay poulet local damay jaay bleu kii bleu d'Hollande ak poulet de chair yi. Ah, kon yow tey mun nañ jàpp mun nañ wax abi macha allah am na xaalis. Ah, maa ngi sant yàlla de. ndaxte xam naa ne maa ngi sant yàlla ndax am sa soxla euh, làmb sa poos faj ko jar na liggéey ba dee. tey ku mm. ah, ndax duma fanaanoo xaalis. <laughs> sa sa banque ba laa koy def. laa lay wax ne ku la fëgg ne la 1 million laa soxla. <laughs> Ah. mun nga ànd ak moom ba banque abal. <laughs> waaw mun naa nekk. ñaata fa aw ma fa lu bëri de. Ah, <laughs> aw ma fa lu bari de Ousseyn xaalis bi. ay matériel la yu ñu teg mais du xaalis buy tëdd ndax xaalis day liggéey boo ko tëralee foofu. wa bank bo ñokoy liggéey waa banque ba ñoo koy liggéey déedéet xam nga waxatu ñu million milliard déggal ay milliard nak usin ah sante yalla amin ya rabbi amin amna ay xar dal amna ay ginaar amna sama boutique céréal ma ngi ñu ngi transformer di duggal suñu boutique mhm. waaw ñun association ñaata ñu association ñaata membre eh? lañ 45 45 ñepp ñëpp ñu ngi liggéey wa loo boo gisee ma ne 45 membres parce que liggéey membre bu actif. Mhm. ngay compter comme membre. buy nelaw moom. Ah. du ñëw réunion waaw waaw du ñëw réunion du ñëw réunion du assister lu du programme bu amee ñu ñëw bokk boo ne woon hôtesse tamit ñëpp ñëw bokk loolu xam nga du membre mais ñii liggéey ñii ñu ñu ngi si transformation ñu ñu ngi si microcrédit bi ñu ñu ngi si aviculture bi ñooñu ngay compter comme membre. abi dafa am ku fi dalaloon fan yii mhm. nee développement mhm. fii am na xam ne mhm. depuis jamonoy Senghor ba tey ñoo fi nekk mhm. nee na mhm. man tey lan laay wax si loolu Ouzin mooy euh, xale yi nga xamante ne ñoo doog a jóg bëgg si bokk si développement bi mais na ñoom nañu organiser wu nañu organiser wu

parce que dañuy gis yenn ñuy réclamer wu femme de de développement te boo xoolee ñaari nit wala ñetti nit sax amuñu ko. am na. am na bëri na. parce que ñun tey xoolal ñun suñu association tamit ci ñoom la jëm. waaw askan wi du ñu gis. parce que ñoom ñoom la ñu reconnaître tey jii doguma la tey suñu association am nañ suñu récépissé xoolal activité yu ñuy def mënuñu lim ay euh, ñi nga xamante ñu ngi def développement ci Tamba te duñu limaale. mais CRD buy ñëw wala ay réunion yu ñuy woote gouvernance association des de d'élèves de Gourel Diagne ah, mais ñun duñ si bokk duñ ñu convoqué ah, seeti ngeen gouverneur seeti woon naa gouverneur benn yoon mais duñu convoqué xamuñu euh, kii circulaire yi ndax est-ce que xam nga gouverneur du ko bind du bind circulaire yi day désigné léegi kan moo koy bind nañ ma dégg mais ñun duñu si boole te képp koo xamante ne am nga récépissé nekk association di def say activité war nañ la see boole. jéem ngeen la. jéem nañu après dinañ si dinañ si ah, dinañ si delluwaat. waaw xanaa dafa am ñu leen di xeex ah wóorul wóorul ndaxte xaw ma lu tax xaw ma lu tax mais tey comme que dañ ma invité tey si rajo am naa droit wax li nga xamante ne moo nekk sama xol. Ah, am naa droit wax ko am naa occasion wax ko. Euh, préfet seeti wuñ préfet. gouverneur ngeen seeti. gouverneur euh, seeti woon nañ ko fi yàgg. Mhm. man ak tonton Pape Gueye. si mouvement boobu la wax. mouvement pour la défense des intérêts de Gouré. mais taxul ñu intégrer ñu mais ñun man sama association gouvernance lañ ma joxé sama récépissé gouvernance lañ mako joxé joxee activité bu amone ñuy wo yenen association yi ñu ñoo liggéey ñun fum mu ne nii ñu ngi ay partenaires ñu ngi def suñu activité kon tay jii association bu ñu jox convocation na nga ñëw wuy réunion ñun waron nañ sé mëna bokk. ndax am na association yoo xamante ne ñu ngi leen di woo foofu ñun lu ñu liggéey ñoom liggéeyuñ ko. Tambacounda. feebar Covid bi waaw. metti woon na lool metti woon na lool waaye fan yi moom ñu ngi sant yàlla bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax euh, defe naa mu ngi wàññeeku. mu ngi wàññeeku liggéey ngeen liggéey nañ si bu baax a baax. liggéey nañ si en tant que bajjen gox. ah bajjenu gox bajjenu laa. Euh, ngi sant suñu présidente de passage dañuy dégg bajjenu duñu gis dara nan ngeen di lu ñuy liggéey gisoo ñu man bëgg naa tey nga liggéey yéen bàjjenu gox bàjjenu gox li muy liggéey ñun ñu ngi yëngu ci santé mm, euh, de la mère et de l'enfant ngeen di liggéey ñun ñu ngi liggéey di sensibiliser ñun sensibilisation la ñuy def dañuy def sensibilisation ak prévention non fay ñu ñun ñoo apte pour nekk bàjjen gox ndax liggéeyal suñu askan ñu ngi liggéeyal suñu askan liggéey bu rafet. sensibilisation yi ngeen def kenn fayu leen. kenn fayuñu. seen bopp yàlla moo gën bu jaam fayu yàlla. Mhm. moo gën bu jaam maa ngi nuyu sama présidente euh, Mariama Togo Guindo de passage. Ah, si Covid bi mooy présidente mhm. régional des Bajenu Gox. si euh, Covid bi mhm. ñoo njëkk a jóg. ci Tamba. ñoo njëkk a jóg jënd suñu gel taxaw si marché bi. ku ndugg ñu sensibiliser la. si raxasu bi. boo amul ndox ak saabu sa kër boo dee yéen nga yor sa gel ngay laal sa loxo takk sa masque noo ko njëkk a ah, def sunu sunu kees. ah am ngeen kees am nañ kees dañuy cotiser seen kees ñaata fan ñaata déedéet. ah amuñu ah amaguñu sax million. <laughs> <laughs> cinq cent cinq cent la ñu par mois. ñaata bàjjenu nga xam fii ci bëri nañu. bëri nañu ndax poste bu nekk dafa am ay bàjjen ko xam. ñu ngi si poste santé feebar bi am na de am na de. am na am na bu baax sax nañu gëm ne am na ndax gis nañu dee gi nu mu bëree ren ji ren ji ñii fi dee gis nañ ko. gëj na li nga ni bu weesoo Gurel Diagne Tambacounda naka ko gis changé na changé Tamba fan yii de moom mu ngi changé suuf si suuf si ak yoon yi mu ngi changé mais dëkkin bi vraiment gis defe naa changé wul. dëkkin bi mooy lan bi ñi ñàkk ñu ngi ñàkk ñu am ñu ngi am. ñi ñàkk moom ñu ngi ñàkk ba tey ñi am tamit ñu ngi am ba tey ah lu waral loolu tey jii même euh, ma tooñ ADP ma tuuti ñi nga xamante ne ne ñoom ñoo am mm-hmm. ñoom ñoom gën a jàppale ñu amuñu kenn jàppale ñu amalewul kenn jàppalewu leen ndaxte bu boo fekkente ne tey jii yow transformatrice bu ndaw nga amoo autorisation Fra xam nga fayoo impôt et domaine ñu ne ñu ne boo fekkente ne danga bëgg ñu jàppale la na nga na nga indi say li nga doon fayee impôt et domaine yow daaw a fay impôt et domaine dinañ la dinañ la jàppale duñ la jàppale kon nañ leen jàppale ñu am autorisation Fra ñu jàppale leen naka la ñuy fayee impôt domaine comme ça ñu am yooyu yëpp ñu teg ko ndimbal bu mag bi su ñëwee nag ñu mun a postuler mais tey ji am na lu bëri loo xamante ne duñ ko mun te ñooñu ñooñu ñàkk ñi te ñu ngi def ñu ngi def liggéey bu rafet tey jii céréale bi ñu lekk euh, bi ñu jaay si koñ yi koy defar. ñoom ñoo koy jaay mais nag amuñu lépp lu ko war parce que boo fekkente ne autorisation Fra dafa cher boo xalaatee ne da nga war a fay lii te yow li ngay am bëriwul doo ko si nee def. président Macky Sall le 3 avril dégg nga discours am woote na cohésion unité nationale. Mm-hmm. dina créer emploi. Mm-hmm. jeunesse bi dina leen wutal liggéey. Mm-hmm. enseignants yi dina recruter. sa xalaat wax na sax jigéen ñi seen financement dina ñëw. gëm nga loolu. ah euh, man daal wax jooju moom mu ngi noonu la ndax bàyyi ba problème am nga doog a génne li loolu da ko war na génne balaa problème bi di am ba mu faloog léegi ñaata at la. ba mu falee ak léegi ñaata at la. si loolu si loolu noonu la ko war na defee mais bàyyi ba problème sonko bii ñëw xale yi nu ñu génnee boobu la leen di door a dégg mu ne. loolu loolu loolu defe naa loolu du njiit. kon lu mat ah ba ma gis ko financement jigéen ñi nag moom. li yàlla xam doy na ndax financement bi fi euh, ministre de la femme waxoon ba tey ji am nañu yor yor seen talon jotaguñu financement ba tey am nañu yor seen talon jotaguñu financement gureel jaaje man financé wuñu ma sax mm. ndax déposé wu ma woon sax man maa ngi xaar ba nekk président rek ah. waaw maa ngi xaar sama parti ba mu nekk président am na jigéen bu am na groupement bu nekk jigéen mm-hmm. versé woon nañ sax seen xaalis approval ba tey jotuñu xaalis jotuñu financement seen xaalis mu ngi Aprovac ba tey. ñaata lañ versé woon Aprovac. xaw ma sax hmm. xaw ma sax. jàppal Ousmane Sonko bàyyil Adji Sarr. Hmm. jàppal Adji Sarr bàyyil Ousmane Sonko. Hmm. lan nga ah lan laa si xam daal li ma si xam daal mooy erreur bi moom Ousmane Sonko moo def erreur. Ah, Ousmane moo def erreur ni mu defee erreur mooy. nit ki bu fekkente ne ne yow am na loo bëgg am na noo am na kilifteef booy woote da war a moytu yenn yi. foofu rek laa koy balaame mais dëgg bi yàlla rek moo ko xam yàlla na ko yàlla leeral yàlla rek moo ko xam yàlla waaw mu leer ci laa bokk waaw yàlla na ko yàlla leeral si weeru koor wu tëdd wi te defe naa ne dina leer sax seen prochaine si seen groupement association sunu association bi fu mu ne nii moom lu ñu programme mooy joxe ndogu ah, benn dañu joxe ndogu Euh, deuxièmement bi dañuy woo présidente Calabas yi pour ñu adhérer ci CMU bi. kañ ngeen di kañ la ñuy wax ñu ngi koy waxtaanee mais jàppaguñu bés. parce que dañoo jàppoon nañu bés gaa. dañuy gis ñu bëri dañuy joxe ndogu. Mhm. mais fu ndogu bi war a dem du fa dem. waaw dëgg la dëgg la mais ñun xamante nañ suñu biir sax mhm. parce que dañuy def social. suñu association dañuy def social ci éducation. si weeru sama technicien mun na yaakaar ni dina jot bosom ndogo. Euh, eh. ah, <laughs> vulnérable yi la bokk moom. waaw bokk si bokk si bokk si bokk si ah. bokk si euh, si social bi ñuy def parce que am na si ñoo xamante ne tey jii fourniture sa problème la dañ siy jàppale. parce que am na parent yoo xamante ne da nga yor ñetti élèves ñeenti élève si kër gi te xam nga école bi léegi moom dafa metti bu fourniture méttee ñun dañ lay lebal nga dem nga jënd sa fourniture doom yi ngay fay ndànk-ndànk si caisse de solidarité bi waaw. soxna Abi Tamba bi mi ngi lay gërëm di la sant yéen ñi doon seetaan tamit kenn demoon ngeen des di mbokk téléspectateur ak téléspectatrice Tamba TV di fàttaliku rek Seynabou Diop madame Guèye ñu gën ko xam ci Abi di présidente maire d'élève bu Gurel Diadié rawatina aussi beneen kuréel bu muy jiite di animatrice Calabas. bi nga xam ne moom la directoire régional des femmes en élevage jiite bokku téléspectateurs yi ñu dox leen dig daje ba beneen yoon wasalaam jërë jëf